yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. salaamaaleykum wa rahmatulah. kay noo nuyu baax leen siyaar di leen ñaanal yàlla di ko sàkkuwaat ci yéen di santaat sunu borom mi nga xam ne mayoon nañu waxtu wi daaw ñu bokk woon teewoon jotaay bii mu mayaat ñu bokk teewe donc dellu di ko ñaanal may ñu bokk teewe jotaay yu bari ci kanam te lépp ànd ak ngërëmal yàlla noo ngi leen nuyu baax Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoulahi ci turu sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Aliou di leen siyaar di leen ñaanal yàlla te koy sàkkuwaat ci turu doomam ju baax ji munu booleel ak sëriñ Baara Bousso mii munu booleel ak mbooleem kilifa yu tedd yi ñu àndal ak soxna yu baax yi ñu àndal mu mel na yoon wii mooy yoon wi fi daan ñëw rek kenn ku nekk xam na ne yàlla def ko boole ak mbooloo moo xam ne ay kuréel yu takkulan waaye ñu gën cee ràññee daara ji ak liggéey bi ak tool bi ñu àndak moom doon ay soppeem doon ay wëllëreem ci rajo yi nga xam ne yàlla jaaral na ko ci loxoom ñoom nag ñuy def waxtu wu ne suñ demee ba ci weeru koor gi ñu dajale seeni dërëm ak seeni ñaari dërëm ñëw indil ko ngir barkeloo ko ci jëmmam waaye moom tamit waxtu wuñ ko indee ci jëmmam day wax ne liggéey bii dama leen koy dugalal ci biir liggéeyu Serigne Touba bi waxtu wenn wu nekk buñ dajalee ba ñëw ci jëmmam mu àndaat ak ñun wëlbatuñu ba indiwaat ñu fii ci liggéey bii ngeen liggéeyal sëñ Touba nga xam ne moom waxtu wu ne day wax ne liggéey bii ngeen yor di ko liggéeyal sëñ Touba bu ko jamono mayoon moom mooy ñëw di ko ànd ak yéen di xëyandoog yéen di wàccandoog yéen waaye bi jamono xatee ci moom ba mënewu ko tamit yéen ñu fi nekk mu ngi leen di bàyyi xel waxtu wenn wu nekk loolu mooy sababu liggéey bi waxtu yegsee ci moom rek mu ne nan ko indiwaat ba ci seen jëmm yi teg ko seeni loxo ngeen defal ko ko ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi kàddu yooyu la sëriñ boo waxoon ne nan ko jotal eh, ak kàddu yu sant ak kàddu yu ngërëm ak kàddu yu ñaan rek eh, ñu ñaan yàlla fekk la waat ñu ko at yu bari ci kanam barke alxuraan darajay xasida yi sant nañ bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooloo mi nga àndal ñëpp ci turu sëriñ Afia mi nga xam ne mooy njiitul daayira muqaddamatul xidma di jaalale ci yow kadduy nuyoo ak ziar di ko jëmale ci sa wayjur wu tedd wi sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Cheikh Aliou waaw kon kàddu yooyu sëñ Mouhamad nga jàlleel ñu ko ci sëñ Cheikh muy kàddu cant ni ko sëriñ bi waxee ci jëf ju réy ji nga xam ne baaxoo na koo def te ànd ko yéen ndax ni ko sëñ bi waxee kat ca njëlbeen ga mu ñëwal boppam daf ne ñii kat dañoo am yéene liggéeyal sëriñ Touba te liggéey bii ñu bii ñu bëgg a jaarale ci man ma jàpp ne fii moo ko gën a yayoo moo tax ma ne leen ñëwleen ñu dem. fa nga xam ne fu moo ko gën a yeyoo fa lañ euh, fa la nangu gi di gën a gaawe loola nag jàpp naa ni ku la ko defal euh, tawféex la la defal ndax damay faral di wax ne barab bi ñu nekk muy jumaay Tuubaa moom liggéey bu nangu moo fiy ñëw liggéey bu nanguwut xel du ko daj sax ba mu ba mu fiy kon bu fi ñëwee jàpp nañu liggéey bi nangu na te it loolu mu def day lu rëy loo xam ne ndax ku nekk xam na ne moom yeyoo woon na ko Euh, yeyoon na koo jël ndax ci ci ci liggéey Sëriñ Tuubaa rek lay xëy di ci gont loolu mooy yitteem foo ko gis njariñul boppam taxu koo jóg njariñul taalibe ak liggéey Sëriñ Tuubaa rek waaye nag bëgg mbir mi gën a nangu tiyaabu ji gën a yokk euh, bénéfice ba gën a bari moo tax mu indi ko fi nga xam ne fi la gën a sàkkane kon loolu tegtal la ci ne moom euh, modeste ak ak taalibeeg Sëriñ Tuubaa moo nekk ci moom ba jeex tàkk daayira Muxaddamatul Xidma nag di mbooloo moo xam ne ba mu sosoo ba léegi sëñ Cheikh Aliou da koy bàyyi xel da koy bàyyi xel ci ci ci ay xalaatam da koy bàyyi xel ci ay alalam da koy bàyyi xel ci ay jumtukaayam ndax tey bokk na ci li gën a tasaare liggéey bu Muxaddamatul Xidma rawatina waxtaan yi ñu def ci jumaa ji mooy jumtukaay boobu mu mu yor muy ceeñeer ak jant bi fu waay mën a nekk bu takkusaan jotee boo ko taalee dara dootu umb ci jumaa ji te ñun ñëpp xam nañ temps ni mu chéré ci wàllu média ci wàllu rajo wala wàllu télévision loo xam ne nag at mu jot weer wi yëpp fanweeri fan nga jël lu mat ñetti waxtu di ko jagleel benn mbir te séentuwoo ci lu du pay sëñ Tuubaa du sponsor bu mu cay laaj du du lenn lu mu cay laaj waaye da koo def rek ngir ngir liggéeyal sëriñ Tuubaa ngir tasaare njàngaleem sëriñ Tuubaa loola lu rëy la loo xam ne ñun gis nañ ko te yëg nañ ko bu baax a baax di ci sant bu baax a baax di ci gërëm di ko seedeel rek mbokki taalibe yëpp li ko tàmbalee ci yow ak mbokki taalibe yi nga xam dañoo am yéeney def lu baax euh, yéeney liggéey Sëñ Tuubaa jaare ko ci moom kon mbooleem ñi nga xam ne ñoo aju ci euh, euh, soppey rajo yooyu mu tudd moo xam jant bi la moo xam ceeñeer moo xam yeneen yi ci topp yëpp nga xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa moo leen tax ànd ak Sëriñ Cheikh Aliou yi dem ca nañ seede ne Muqaddamatul Xidma moom ak Jumaay Tuubaa bëgg nañ lool ci ab taxawaayam bu fekkoon yoonu murit daa am ordre national de mérite bu ñu décorer suñu Cheikh Aliou moom dañ ko décorer ci liggéey bii moom ndax ab taxawaayam ak pas-pasam ak yëg-yëgam ci muxaddamatul xidma lii lii lii nii liggéey bu rëy la waaye benn la ci taxawaay yi mu def ci muxaddamatul xidma du màggal du gàmm du benn événement boo xam ne muxaddamatul xidma dafa soxla jëmmam walla wala ay xalaatam walla alalam te du dafa daf ko defee ni ñu ko bëggee te lépp liggéeyal maamam doo nga tax mu di ko def kon ñu ngi koy ñu ngi leen di seedeel ak cant goo xam ne bàyyeekoo na ci sëriñ Afia mi nga xam ne mooy njiitul daayira Muxaddamatul Xidma ak mboolem kilifa yu ko séq yëpp jëmee ko ci jëmmam jooju ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di di di di ko damoo ñu toll di ko damoo ñu toll ndax nag liggéeyal sëriñ Touba ci ndaw neex na lool baax na lool waaye nag bu geesoo gis ku nekk ci ci ginnaawam ci wetam di ko ca encouragé di ko ca soññ gën ëpp ko ci sax Pastef te te te te te taxaw taxawaayu jëmm sëriñ bi loola dana sawarloo ndaw li nga xam ne moo jëm ci liggéey sëriñ Touba kon yéen itam ñi ngi leen di sant bu baax ci jëf ji ngeen jëf du ma ne sax yàlla na ko suñu borom nangu borom nangu na ko ba noppi ndax fii lu fi xas ba ñëw dafa fekk borom nangu ko ba noppi bu bu ko borom xel du daj sax du ko xalaat sax ba fi ba fiy jëm kon ñi ngi leen ciy sant bu baax di ñaan suñu borom defal leen tawféex yokk yokk ko bu baax a baax a baax yokk wërsëg yi euh, ba seen yéene fi ngeen bëgg mu àgg fa ci liggéey bi ngeen mu weesu ko te mu doon loo xamante ni seeni sët ak seeni sëtaat dañ ko mën a jëriñoo kon ñi ngi yëkkati foofu sunu kàddu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi